lii nii financement yi lu ndaw la ci programme bi nga xamante ne nag moom lañu am ndax à part lii am na leneen loo xamante ni moom la ñuy xaar si yéen ndax yéen keroog conférence ba yéen ñëpp da di génn taxaw man man waxuma de yéen a yow lañu bëgg nga nekk suñu maire yéen jigéen jeex ñu dem si Covid 19 mu metti ngeen jóg le réseau des femmes ne da ngeen di woote marche pour la paix ngeen génn ànd ak waa Thiès ñëpp woote jàmm jàmm ànd ak dal donc tey yéena ma def leader yéen jigéen ñi yéen ma def candidat et candidature boobu nag je pense que ni c'était une demande sociale mais demande boo xamante ni jigéen ñi ñoo ko soxla woon parce que ku xam président Abdoulaye Dieng xam ko ni mooy xaritu jigéen ñi ndax yéene bi nga xamante ni am na ko dëkk bi nag waxtu wii ku nekk ngi jóg këf bi dafa gaaw naxaate bi dafa bari ku nekk ngi jóg indi say financement jële ko fu ne mais def leen nank ci financement yi financement yoo xamante ni banque lay jaar dangay ngeen di signé joxe caution joxe lépp lu ngeen si dugal di ngeen ko delloowaat moytu leen ñi leen ni bëgg taxase seen xel donc je pense que ni Ablaye Dieye mosul dugal dara di si laajaat delloo ñu loolu taxuñu jóg dañu jóg ngir dimbali askan wi ngir jàppali jigéen ñi ngir dooleel jigéen parce que jigéen ku ko dooleel dooleel nga société donc nag lii nii euh, dañ siy am xel bu dal di leen ñaax ni élection locale yi ñëpp xam nañ ni coalition bi nga xamante ni moom lañ teg ci gox goxaat yépp la nekk ci commune nord ci commune ouest mais également ci commune Thiès est bi ñu nekk waa zone nord dégg nañ seeni i parce que président Abdoulaye Dièye kat ñun ñëpp bëgg nañ koo gis ku ñëpp bëgg gis nag des fois gisin bi day xaw a jafe wante sama xol ak sama xalaat lépp mu ngi ci jigéen ñu Thiès yëpp awma farfarloo man Thiès ñooy sama parti benn parti laa am mooy Thiès parce que Thiès waaye laa gëm jafe-jafe Thiès laa bëgg saafara mais yokku-yokku Thiès laa bëgg te loolu mënu ko def te ànduma seen yéen le réseau des femmes de Ziguinchor mais également toutes les femmes yi nga xamante ni nekk nañ fii ci Thiès donc nag di wax ni rek élection yi coalition ànd Siggil Thiès yéen yéen a mu nekk coalition ànd Siggil Thiès mu nekk coalition boo xamante ni ay euh, plus de ñaar fukki organisation ak ñaar ñoom ñoo ci bokk ñii ay parti politique lañ ñii ay mouvement citoyen lañ ñii société civile lañ ñii ay chef religieux lañ ñii ay imam lañ ñii ay enseignant lañ ñii ay corps de métier lañ artisanat mécanicien responsable marché yi ñoom ñoo formé coalition te fii ku fi nekk rek xam nga ni bokk nga ci coalition parce que dañ naan coalition citoyenne donc Thiessois yëpp ñoo bokk coalition bi te xam ni coalition bi kat mooy coalition bi nga xamante ni mooy changé Thiès mooy ki nga xamante ni mooy wax te lu mu wax def ko parce que yéen a ko wax di président Abdoulaye Dièye li ñu ko xamee lu mu wax def ko donc na ko lii wane na malgré difficulté yi si am yëpp lañ leen diggoon def nañ ko tey et je pense ni nag yemul si lii wax naa ko Adja Mare ne ko lii day continuer dina continuer dina am yeneen financement yoo xamante ni mu ngi ñëw pour gën leen a dooleel parce que kat yéen a ma defoon confiance avant ëllëg lu mën a génn bala may xalaat kenn waa réseau des femmes lay xalaat ba donc di wax ni rek ci suñu programme bi ñu am ci coalition bi pour bés bu ñu daagaanee baatu askan bi ba nekk maire bëgg nañ teg nag banque municipale banque municipale boobu mooy rek régler problème yii yëpp financement yoo xamante ni dañ leen koy defal du duñ leen teg intérêt mais également leen teg benn caution te loolu nag mën ko xam ko xam yoon bi ñuy jaar moo tax ñu wax parce que buñ ko xamul woon duñ ko wax donc ñi nga xamante ni tey ñu ngi wër di wax te amuñu programme parce que bu dee da ngay daagaan baatu askan bi day fekk nga am programme boo xamante ni daf lu wóor ni mën nga ko réaliser ndaxte avant ñuy def suñu candidature ba ngeen taxawee ni président Ablaye Dieng dañoo bëgg nga nekk suñu maire man dama ni ah ñii de li ñu ma sas diis na xaaral ma dem laaj askan bi ba pare ma dem wuti benn kabine yónni leen si gox-goxaat yi ne leen dem leen ngeen laaj askan wi lan mooy seen i jafe-jafe kan lan xalaat ni ban façon maire dañu bëgg mu am ma fay cabinet boo xam dafa dugg si gox-goxaat yi dugg zone est bi dugg zone noor dugg zone ouest kenn xamu ko ñu defal ma enquête laaj ñu tënk ko si benn kayit ma liir ko ma ne mais lii dafa méngóog man li ma yéene waa Thiès donc nag ma ne loolu nag su amee amoo droit nga dellu gannaaw li nga bëgg su méngoog li nga yéene wàccees Thiès da nga si war a dem ba jeex donc moo tax tey eh, li tax ñu mën a réaliser loolu mooy élection yaa ngi ñëw ku si nekk fii relais nga ku si nekk fii point focal nga si gox la global du financement et environ 17 millions yoo xamante ni moom la ñu war a séddale 43 groupements donc je pense que loolu mooy li nga xamante ni tey moom moo fi taxaw donc euh, groupement yi am na 19 groupement yoo xamante ni ku si nekk day am 500000 ak euh, les autres ak ak ku ku ñu jox 500000 dañ lay tegal beneen 100000 francs pour appuyer la. am na groupement yoo xamante ni ñi nga xamante ni mooy de 500000 entre 300 ak 400000 am na 50000 yu leen tegal appui donc loolu c'est c'était bon à préciser. donc montant yi c'est entre trois cent mille ba dajaloo neex na lool jël ci financement bi neex na lool waaye bulletin bi bulletin bi muy bu vert blanc bi mooy fal Abdoulaye Dieye ci mairie est bi mooy fal Abdoulaye Dieye ci mairie ville bi bu ñu jëlee nag financement ba pare na nañu xam ne it am na lu ñu war ndax bu doon suñu benn carte rek. soxalu ko kenn ku nekk ci ñun bu sasoo ni ñaar fukki nit ak juróom dinaa fexe ñu voteel Abdoulaye Dieye le 23 janvier incha allah kenn du naatable victoire am ma leen di xamalaat ni man léeg-léeg dañ naan ma dangaa faral jigéen ñi ba mu ëpp waaye yéen ñi yéen a mën góor ñi yéen a mën ndaw ñi bu ngeen wàccee bu ngeen wàccee am yéene am gëm-gëm ni kii moo war a defar cees moo war a jubbanti cees moo war a defar école yi moo war a xàjj yoon yi moo war a jàppale jigéen ñi moo war a indi industrie yi ndaw yi liggéey nañu sawar lool ci jox ko kàtt. si ki na liggéey coalition bi mooy liggéey te ñun ñëpp ñoo ngi ci biir coalition bi parce que bi dañoo jël président Ablaye Dieye def ko tête de liste ni ko yow yaa jiite coalition bi comme ni ma leen ko expliqué woon bu xooleen tey Mame Mbaye mii. Mame Mbaye jógal taxaw mooy sunu coordinatrice yéen waa Thiès gis nga moom ku nekk xam na ni fi mu nekkoon mooy parti APR la nekkoon nekk fa responsable tey su jëlee APR wan ko ginaaw ñoo ànd président Ablaye Dieye ak lu mat ñeent <laughs> ak lu mat ñeent fukki moromam yoo xam ni euh, réew mi ngi ci parti social ngi ci PDS ngi ci LD mi ngi ci AJ ma ngi ci lépp a ngi ci ñu ñëw porté seen candidature ci Ablaye Dieye loolu moo waral coalition bi président Ablaye waa réseau des femmes nee nañu namoon nañ la bi ñu waxtaanee nii nee nañu gët nañoo dajaloo depuis ca marche ba léegi nag boobu ba léegi si am na ci ñoo xam si rek nee nañu seen xol li ngeen ci dëkk bi ñu ngi koy suivre te ñoom daan nañ ci jot seen wàll dafa am loo xam loolu lañu ñu amagul rek te dinañ la ko wax kon ñu ngi lay dalal bu baax. man maa ngi tudd Xadijatu Ndaw maa ngi dëkk Jaxaaw Jaxaaw Kanda maa ngi bokk ci zone nord. président dañ koy yàgg bëgg te gisuñu ko dañ koy yàgg bëgg yàlla rek a tax may wax te gisuñu ko man mii di wax ak yow maa damaa yor groupement groupement des femmes man maay présidente bi sama vice présidente mu ngi nële ñu koy wax Kiné Diop Kiné Diop dafa yor ay taalibe ci biir këram jëkkëram di sëñ Cheikh Balde ku ñëw jaxaaw jaxaaw Kanda jàqay ASC e, ku ne xam na ku ñuy wax sëñ Cheikh Balde bu ñu xamee bu ñu xamee Ablaye yàlla ki ne moo tax wallahi azim man du may bëgg du dugg si politique parce que damaa damaa naqee deret mais tey jii jaxaa zone nord loole fa am tey jii na ngeen ko sante yàlla ak Nafisat na ngeen ko sante yàlla ak Nafisat man du ma gërëm ku ma defalul dara nit ki mën nga koo bañ a defal dara it da nga may ko jaamu yàlla rek moo tax may wax réseau bi su si duggee yàlla ak Nafi Satu moo tax su ma duggee ci réseau bi yàlla ak Nafi Satu moo tax may wax Nafi Satu ëmb na ba diis moog biiram ba jaxaaw man damay naan yéen yéen a fàtte zone nord ñun gisuñu financement ñu dégguñu financement ñu ñu kenn koo xamante ni jógee na ci kii bi bi ñëw ni xaaral ma dem seeti waa zone nord jaxaaw mais num Nafi Satu moo ëmb yor biiram fekk si ma fa ma neex ñëw waxtaan si ak ñun sama groupement tey su ma nee nekk na deux yàllaa tax may wax kenn ne joobu doo bàyyi ma fen ndax dama ni tey jii si maa laa benn yoon laay tooy sama koñ am na ko fa ne sama koñ su ma neex ma tudd leader am na ko fa ne juge dem moo fa ne dama nëbbatu laqatuuma te la laay wax juge dem moo fa ne kere bu mu ñëwee sama kër di wax dama ko ne ñun xamuñu la mu ne pourtant fi laa juddoo mais fii nga juddoo fi nga mel ñun xamuñu la Ablaye Dièye nag donte xamuñu ko mais ñu ngi koy gis ñu ngi koy gis si dooleem ñu ngi koy gis si askan bi ñu ngi koy gis si xale yi donte nag gisuñu laayoon ñun ñu ngi gis ndax mu ngi def ñuy gis joxuñu lu dara nag loo xamante ne war nañ koo war a may comme muy dafa suñuy njaboot di ñu boole ci loo xamante ne daaw ñu ci bokk ñu ngi koy sante yàlla conférence bi ku fa dem xam ne conférence nu meloon ku ne xam na nu conférence ba meloon sans mbootaay yëpp la mobiliser dem ci yàlla na fi satu kon man damay gërëm satu ndax lu ñu xam tey ci Ablaye wala ñu ko ci am yàlla ak Nafisatu li may wax mooy bu ñuy fàtte waa Jaxaar Zono bu ñuy fàtte